soppi nañu bërëb comme ni ngeen ko seeni noonu soppi nañu col ko waaye ñu ngi des ba léegi seen émission dundee suuf si dundee suuf si tey ñuy waxtaan li nga xam mo jëm avicole di yarum ginar yarum ginar nag ku ko wax sa xel dina dem si ni nga xam te ne bi noonu lañ ko tàmmee gis si aada ak ni nga xam ne noonu lay doxee cosaan bi nekk waaye nag fii ñu yegg si tey di ay ferme bi wala ferme boo xam te ni bi yaatu na loolu ñu ko gi daxawaay bi euh, bii ñu nekk di ab serre boo xam ne euh, nataal la si yeneen ñett ñaar yi nga xam ne ñoo nekk si biir euh, ferme bi nga xam te ne bi yaatu na lool si hectare waaye nag bërëb bi ñu nekk tey mu toll si junneeg lu toftal daanaka juróomi téeméeri mètre carré yoo xam ne li fi ëpp si wàllum ni ñu yar ginaar ëpp na faneeri junni yoo xam ne ñoo fi génne si taxawaay bi nag lu am solo la ay ndaw ñoo koy taxawu di ñoo xam te ni bi ay technicien nañu avicole dinañu dikk bu baax a baax daal leen ni leeral lan mooy liggéey bi nan la demee naka la ñu mën a def ba euh, réussir si li nga xam te bi moo di yarum ginaar naka lañu ñu def ba li nga xam te ni bi moom la ñuy euh, seetlu saa su nekk si yarum ginaar muy ñàkk gu bëri gi maanaam euh, li nga bi di du ëpp lu ñuy dee laataa ñu leen di mën a jëfandikoo nan la ñuy def ba mel ak euh, bërëb yi nga xam te ni bi la nekk li laaj lépp lu yaatu si li nga xam ne moo di jataay bi nañ ci ànd ak ay ndaw yu jàmbaare yoo xam bi di ngeen ko euh, gis léegi si kanam ñoom ñooy taxawu li nga xam ne di ferme bi nga xam bi ay njàmbaar yi réew mi ñoo taxawal si réewum Sénégal ngir ñuy dundee li nga xam ne mooy boo si suuf si kon dañuy ànd ak yéen gëstu li nga xam ne jëm yarum nan lay yan ñooy li nga xam war nañ ko saafonteel ngir lépp ñoŋ dañuy àndandoo ak yéen topp li nga xam ni moo di jataay bi ngeen mën a euh, gëstu bu baax a baax li nga xam ne moo fiy am. bon ferme Gade Gui euh, superficie bi yëpp mu ngi nekk deux deux hectares deux euh, hectares, bon, il y a 4, 4 bâtiments. 4 bâtiments chers de, de 32 000 poulets. Avec une règle Avec une règle de Bon, il y a un aspect technique, il y un aspect, aspect administratif, il y un aspect, bon, aspect ouvrier. Parce que tu fermes, oui dañ fi am ay techniciens xam nga am fi ay ouvriers am fi les techniciens pratiquement ñoom ñooy ñoom ñooy gérer tout tout ce qui se passe dans dans les bâtiments donc euh, am nañu fi tam bon ay ouvriers ñoom ñooy ñoom ñooy gérer tout tout ce qui se passe dans les alentours du bâtiment xam nga nettoyage bi affaire yooyu noonu ñoom ñoo koy euh, gérer daal. ci ferme bu ëpp ñaari hectare ñeenti serre yu yemb ngir dalal ay ginaar ferme avicole gàdd gi li fi génn ci ginaar fanweeri fan yu nekk ab limbu bu takku la ci ay junne junni benn serre bu nekk di génne lu toll ci fanweer ak ñaari junni ci ay ginaar fii nag di bërëb boo xam ne dañ ko dëppale ak jamono lépp lu soxla si biir yi la seer dañ koo daal di ak ay machines yoo xam ne moo tax lépp di dox si wàllum automatisme maanaam machines yay doxal lépp. tey jii nii yéen ngi nekk si bâtiment numéro 1. donc euh, man ak euh, notre chef de ferme Mamadou Badji ñoo ko ñoo ko géré donc euh, le bâtiment a une superficie de 1440 mètres carrés donc c'est-à-dire 90 mètres sur 16 mètres de de largeur. Et nous avons ici un euh, nombre de 30 000 poulets de chair actuellement dans le, bâtiment. Et mes sujets ont, euh, aujourd'hui, nous sommes sur notre 21e jour. Voilà. Bâtiment, euh, équipé une technologie de pointe euh, de marque Big Desmond. Donc, vous voyez, le bâtiment est contrôlé par un ordinateur qu'on appelle Viper Touch. Moi, contrôle le bâtiment, nous, en tant que technicien, en tant que euh, technicien d'élevage, le Vaille nous aide, c'est-à-dire sur, euh, certains euh, travaux. Viper bi alimente alimenter bâtiment moi, euh, mooy joxe ndox tout ce qui est lumière ce qui moi, contrôler aussi également la température du bâtiment l'ambiance le climat et tout aussi nous avons des pipettes euh, c'est des pipettes avec un débit de 80 euh, bits Nous avons maintenu moom la ñuy naanalee Nous yi. am système de chauffage chauffage Mon moom li ngeen di lui ñuy permettre pousser yi bu parce que pousser yi buñ pour le premier jour dañuy soxla tangor. maintenant tangor boobu pour nous am ko il faut ñu le bâtiment bi parce que dañuy soxla 32 degrés, voire 33 degrés, euh, le premier jour alors que dans le bâtiment dans la température ambiante nous avons par exemple ay 27 ça dépendra euh, période la période, nous avons 25 degrés, 29 degrés. mais pour nous, may poussins, yi euh, benn tàngoor le bâtiment parce que seen yaay moo le war na mais puisque nous, dañ leen tagal ak seen yaay euh, chauffage yi ñoo leen donc nous avons ak ñoom si chauffage jusqu'à 15 jours chauffage après au fur et à mesure day arrêter voilà amnañ euh, ce qu'on appelle un système de pâte colline pâte colline c'est le contraire du chauffage Ñom bu poulet demee ba mag, au lieu ñuy soxla tangor, cette fois ci poulet yi dañuy soxla seral dañ leen di sédal quoi maintenant bu défé par exemple au dehors 34 degrés wala 35 degrés dans le bâtiment on n'aura besoin que 25 degrés donc pour ñu am il faut que pâte déclencher. dañuy wiss ndox après avec l'aspiration des ventilateurs euh, bi après vous voyez actuellement comment vous sentez par rapport au dehors donc actuellement on ressent 25 degrés dans le bâtiment alors qu'au dehors il fait 30 31 degrés voilà loolu mooy njëriñu de colis lampes aussi bon c'est des lampes à LED nous permettent de am benn luminosité parce que à 24 h sur 24 euh, dañuy lekk. bërëb bi yaatuwaayam laaj climat jamono jo dina du climatisation dans ces bâtiments bu wax ventilation ventilation bi déterminer vitesse bi per air bi ni ci bâtiment bi dans notre euh, ferme euh, dans les bâtiments fermés en quelque sorte plusieurs systèmes de ventilation. man nga am ventilation comitinelle mën nga am ventilation latérale mën nga am ventilation longitudinale mais ventilation yëpp li koy déterminer ça dépend ni air bi di duggee ci biir bâtiment bi mais ñun ici ventilation par tunnel la ñuy utiliser l'air entre au niveau du tunnel mooy 30 mètres yële ngeen di njëkk gis ne de là jusqu'à là au niveau du tunnel léegi air bi nag mooy ci pat cooling yi lay duggee bu duggee léegi nag mais air bi il est par deux rideaux de trappe mooy affaire yee ngeen di gis ne mu xaw a jóg ak mu xaw a mais trappe yoy nono, en fonction de leur pourcentage d'ouverture ci la ni vitesse d'air bi comme buñ une trappe l'ouverture des trappe est de 60 vitesse bi de 0,1 ba 0,2 bu trappe de 100 vitesse ça sera au maximum de 2,5 donc mais ñun suñu ventilo yi capacité vitesse d'air 2,5 5 de 0,1 à 2,5 mais ici on a 10 on a on a 12 ventilos mais 10 grands ventilos et deux petits ventilos les grands ventolins leur leur capacité d'extraction, 0,3 mètre par seconde la ñuy extraire Les nag ventolins yu ndaw yi ñaar lañ ñoom ñooy extraire gaz nocif parce que bâtiment yi booy xool ginaar yi nu ñuy gën di déféquer en même temps défécation yi day ànd ak benn liquide léegi day dégager benn odeur d' ammoniac au fur et à mesure muy accumulé wu si bâtiment bi mën créer des maladies respiratoires te maladies respiratoires yooyu bu ko créer soit mën na rey ginaar bi comme ses performances de production day ventilation bi lay permettre nga mën extraire ammoniac ak yenn poussière yi boy xol bâtiment yi tamit li muy dégage ci poussière day bëri parce que ginaar yi seen laaf yi booy xool am affaire yu ndaw yo xam day dégager poussière en même temps aliment bi tamit day dégager poussière bëri en même temps litière bi bo furee à mesure litière bob di ke euh, poussière bob di accumuler ci bâtiment bi faaw système de ventilation bu baax pour nga mën dégager loolu lépp léegi nag moo tax fii nii lu ñuy jouer le plus moy sur la ventilation parce que man boy xol sa mémoire sax ci la ko def mais sama étude li ma montré que ni vitesse d'air bu baxé ak ventilation bu baxé euh soit day euh, ci poids ginaar bi ventilation bi amna ci ben euh, corrélation bo xamné bu graw bu mu ciy def parce que plus ngay am ben vitesse plus ginaar bi di sentir fraîcheur ta fraîcheur bobu bu koy sentir plus muy augmenter muy gën di consommer aliment di gën di nan ndox plus poids am di gëna augmenter donc lolu am solo la en même temps tamit aussi ventilation bi tamit euh, day jouer beaucoup sur les mortalités parce que des fois benn instant di nga euh, si biti na de trop donc faaw nga am benn vitesse bu baax pour ginaar bi mën sentir benn fraîcheur pour mu mën mag. màgg parce que ventilation bi tamit day jouer rôle bu am importance si litière bi ñu nekk bi nii bu de trop ginaar yi lu ñuy defekke day liquide léegi ventilation bi nag bu dugalee liquide boobu noonu au moins air bi muy dugal day solidal litière bi quoi day tax litière bi du carrément basi walu wàllu lekku yi ak seenub naan lépp it si machine bi la aju loxo du ko laal. boo leen xoolee bâtiment yi yéen a ngi gis euh, ligne de mangeoire yi yi idem yéen a ngi gis euh, pipette yi donc muy système d'abreuvement bi ak système d'alimentation bi donc tout est de manière automatique comme ni ko euh, Diao expliqué tout à l'heure tantôt donc automatisme bi dafay faciliter parce que xolé taille du bâtiment bi ak densité bi ak quantité ginar wi yi fi donc mënoo diko alimenter de manière manuelle donc muy un ben bi muy meuna a nga participer aussi ci homogénéité wu lo bi ndax distribution aliment bi mu gën homogène donc mangeoire bo xolé xoolee c'est c'est c'est calculé pour jusqu'à 32 sujets donc idem euh, muy euh, pipette yi donc système d'abreuvement bi aussi fay permettre ba day day tax euh, par rapport différence ak comme abreuvoir ñuy utiliser ci bâtiment ouvert yeeg yoy non du tooyal euh, litière bi lu bari donc mo ngi non en même temps trémie, tu vois que ne c'est c'est des trémies anti gaspillage donc dans lay gën a may nga mëna économiser en termes d'alimentation donc euh, distribution bi lepp aliment bi bu ñëwé déjà d'abord c'est stocké ci Ben silo d'une capacité de 14 tonnes donc ensuite euh, de là lay distribuer bâtiment à travers les trémies yu mag quatre donc quatre lignes de mangeoire pour faciliter euh, la faciliter distribution aliment bi ci bâtiment donc euh, ainsi aliments, en fonction du programme d'alimentation bu ñuy faire un programme avec 3 types d'alimentation 4 ou 5 donc dès l'instant que bâtiment a maîtrisé les conditions euh, d'ambiance euh, en termes de climat température et tout maîtrisé donc maîtriser donc moto, euh, ay une limite par rapport à sa alimentation donc il nga varier sa alimentation de telle sorte que mon nga 4 ou 5 types d'alimentation dans le bâtiment avantage me me permets, permettre que si résultat est fini, presque à partir de 30 jours mën nga wax mën nga commencer enlèvement fiñ 45 jours d'élevage voilà donc mu nekk loo xamante ne dina la may euh, économie ak rentabilité bu rëy ci sa biir l'alimentation, donc euh, alimentation bi mu ngi noonu et ensuite ba ci rationnement bi boo en fonction ci rationnement bi aussi dafay jouer nombre d'alimentation yi ngay def daf lay permettre nga mën a euh, gën am quantité d'aliments distribués bu normal selon âge sujet donc euh, idem aussi pour ndox et en fonction aussi âge bi di dem da ngeen di gis ne relevés nga dañ koy pour que muy am toujours autour sujet selon leur âge donc en permanence dañuy dugg di contrôler mangeoire yi di contrôler et tout de telle sorte que nous nga mën a euh, am homogénéité bi nga xamante ne tey moo war ci ci biir bâtiment donc donc euh, y a trois types euh, d'aliments. donc au démarrage nous dañuy def à démarrage euh, presque 15 du premier presque 15 ou 18 jours donc nous démarrage ensuite ñu des ci à croissance donc aliment démarrage en général day des aliment fine wala mu miette voilà ensuite aliment croissance bi gis nga comme granulé donc ensuite ñu devons xol euh, ñu doog def aliment finition bi devons gisee ñi def aliment finition aussi parce que démarrage bi mën na am euh, croissance bi du moins mën na am euh, anticox ci donc té té c'est pas c'est pas c'est pas propice bu fekkente ne ginaar dafa lek anticoxidien ba ba ba fin mu donc c'est pas bon à la consommation lool nous ñuy utiliser aliment finition bi pour que résidu yoy sont les antibiotiques yi mu mën mu digérer wu ci organisme ginaar bi ba nga xamante propice à la consommation. en fait euh, ci loolu noonu aussi dañ ciy travailler euh, bu baax parce que bu nekkee ne à 30 jours par exemple dinañ à enlever dañuy jouer ci ci aliments croissance de telle sorte que ginaar bi dina mën a aliment finition. Nous mu la walum climatisation it la lumière di yi nga xam ne saa su nekk ak bi nga def nañu ay la boo xam it dafa laaj li nga xamante ni ak nous ak bi di li nga la biosécurité. pour sujet ñu am croissance bu baax bëri na lu a lu quoi parce que. Euh, am na ay facteurs yu bëri yu entrer en jeu pour permettre sujet ñu mëna mag bu baax parce que bo jëlee température bi bokku na ci euh, ventilation bi ak ki tamit euh, alimentation bi ak qualité aliment bi tamit bokku na ci parce que ginar bo gis bon ak chaque chaque stade stade bu mu tollu day am ben zone de confort bo demee ci walum température bu muy soxla pour croissance bu normale parce que

bon boo jëlee tamit si walum euh, ventilation bi ventilation bi presque fi bon moom mooy réguler boo jëlee température bi ak moom mooy permettre tamit de dégager humidité bi tamit éliminer humidité bi boo jëlee humidité bi tamit dafa di aspect tamit bu important tamit ci ki bi parce que mom tamit euh, mu am rôle bu important tamit bu muy jouer tam si euh, croissance ki bi parce que humidité bi su bëriyee si biir bâtiment bi da ngay constater que copeaux bi ci boppam day kii te loolu day yàq qualité ginaar gi looloo tax tamit dafa di aspect bi nga xamante ne dañ ci bàyyi xel loolu tamit ak tamit euh, boo jëlee xam nga fii dañu naan système euh, bi nga xamante ne c'est tout est automatique bon dëgg la tout est automatique mais tam technicien yi tamit bu ñu xoolee ba xool fii nii liggéey bi doonul liggéey bi nga xamante ne da ngay nelaw nga bàyyi affaire bi yëpp lépp mu jàll automatique

nga constaté parce que da ngay am bët bu baax tamit bët bi il faut nga xool ginaar gi boo xoolee ginaar gi normalement nit ki nga xam ne yàgg si biir bâtiment bi boo duggee boo xoolee bi ginaar gi da nga war a xam ginaar gi lu mu soxla parce que ginaar gi soit mu nekk si benn moment bi nga xamante ne tàngoor bi da ko dugg te tàngoor bi puisque bu ko duggee du mën a lekk léegi yow tu es obligé nga jéem a xool nooy def nga réguler température bi nga wàccee ko léegi tamit boudé da nga dugg tamit nga sentir humidité bi tamit parce que humidité bi yow mi boo duggee bu dee dafa am importance dafa dafa bëri ci biir bâtiment bi di nga ko sentir même bo demul xol ci vapeur bi ci bo boo rek bo nekkee en contact ak bâtiment bi rek di nga xam bâtiment bi soit tàng na wala sedd na euh, loolu loolu tamit dafa di lu important tamit ci production bi tam mais bu ñuy ñëwee tamit chaque fois tamit euh, il faut ñuy dem di ramasser euh suñu ki cadavre parce que puisque ak bu ñu xoolee ak densité bi ni mënul ñak ay cadavre parce que waaw légui buñ duggé dañuy ramasser cadavre yi chaque patrouille boy def da ngay génnee nga dem nga ki fii nii nag ñoo dañuy isoler fi ay ginar yu ki bon yu am problème dox tàng motrice manam yu handicapé yi dañ leen di ber ñu ñu tegg leen fi ak ginar yu ndaw yi nga xamné dañu am retard de croissance yooyu tamit fi nañ leen di ber comme ça ñu mën leen alimenter à part pour ñu mën leen may doole ñu kii sàmmoon sàmmonteeg set gi it waral na bala nga fee dugg di nga soppi li nga xam ne moo di col ko faw nga dëppoo ko li nga xamante ni bii moom la ñuy laaj ci bii la bërëb sol yëre yi mu laaj waaye tamit sax dàll yi mu laaj. voilà yu weex yi ñu dañ ko choisiroon pour démarrage ba bu di ñëw dañuy solal leen ton yu weex euh, ñu accueillir leen euh, parce que il mu set tamit rafet ñu mun a accueillir leen. waaw balaa nga dugub bi d'abord euh, dañuy sangu ba set euh, changer tenue nga ñëw boo ñëwee si bunt bi da nga fekk pet di foofu nga trembler sa tànki yi changer dàll nga ñëw dugg waaw. waaw ah, pour éviter les maladies feebar yeneen feebar yi comme si biti lay jógee yooyu moo tax. ferme bi nga xam ne gàdd gi ñoo ko taxawal mu nekk euh, benn si pàcc yi nga xamante ne bii am na si wàllu mbay yi ak sàmm dafa ràññeeku lool te fës si ay ndaw yu takku taxaw yoo xamante ni bii lépp si liggéey bi ñoo koy amal ñoom nag ab soññe ñu ngi koy def seen i naataango ngir ñu gën a gëm seen bopp ngir mën a dundee li nga xam ne mooy bawoo si suufu senegal mën naa nekk bu ñu ko bëggee réew mi jëm kanam jaare ko si mbay mi ak càmm gi. Euh, dans la vie bon dara bon parce que bon j'ai fait 12 ans à l'étranger j'étais en Italie bon c'est grâce à ce projet là que je suis au Sénégal j'ai tout laissé là-bas pour venir travailler ici au Sénégal xam me contribue au développement de mon pays donc l'homme que je au Sénégal tout ça c'est grâce à à docteur Mabouba moom moo jox confiance xam nga comprendre que jox ñu dooleel ñu tam xam nga pour ñu parce que li ngay gis ni c'est pas facile hein xam nga gérer lii nii xam nga c'est pas c'est pas facile mais bon xamuñu ci woon dara mais biñ ñëwee yàlla dogal na xam nga avec le temps ñoo ngi jàng xam nga di laajte fii di jàng xam nga pour pour bëgg pour bëgg a dem rek parce que dans la vie moi je pense que nii àdduna moom bon nit nit wo foo yemal sa bopp rek yow yow foofu ngay yem quoi

mais xam Sénégal xam nga des fois bon dio do comprendre tu vois les gens xam nga da nga chaque fois ñi ngi tok di jàmbat di jàmbat alors que xam nga jëluñu benn dara dara ci sen bop malgré xam nga le pays euh, Sénégal dafa metti hein malgré dafa metti mais nak bon ñu gëna gor gor li ma leen di ñaax daal li ma leen di doli moy gëm leen sen bop parce que dëkk bi ñu nekk ni kenn du joggé feneen ñëw duñ ko développer man mi j'étais à l'étranger gis na tubaab bi dañuy def fofu comprendre que le le matin bo xëy 5 h du matin dañ leen gis ñoom ñëpp

Parce qu'à l'étranger, tu vas, secteur privé, pratiquement, 90 voilà, 80% des emplois, nous hein. n'ont État bu joxe emploi bon ça sera sur des 20 30 maximum donc secteur privé bi xam nga ñi ils ont les moyens xam nga comme docteur Mabouba xam ont créé des fermes je sais pas lu a créer xam même boo créer cinq emplois sax ça peut aider parce que les gens ñi fi été ñëpp xaalis bi ñu fi Ils ont été dem dimbali si ñeneen yor seen njaboot comprendre donc man message que je vais lu lancé xam nga ba voilà xam nga yi ñaan yàlla tamit xam nga képp koom yaa ngi yaa ngi entreprendre xam nga yàlla defal la ci euh, euh, doole parce que c'est pas facile tamit xam nga parce que investissement bi nekk fii bon waaw investissement bu bëri la donc tamit xam nga euh, ñi ñi fay liggéey tamit maa ngi leen di maa ngi leen di wax tam ñi ñuy liggéeyal nañ leen jàppale comprendre nga parce que tey jii day fi ñu ñi ñi fi nekk di liggéey lépp bis yàlla doxee bañ dem ba law ba law ñu dina ci bénéficier docteur dina si bénéficier mais ñi ci ëpp gëna a moy mooy ñi nga ñoo fi ñëw di fi liggéey ci comprendre nga message bi moom daal mooy c'était ça xam nga di gën a waa yéen itam di leen sant bu baax waa ITV xam nga ak seen déplacement bi ngeen ñëw ak xam nga équipe bi ngeen mobiliser ñëpp xam pour ñëw ba fii ci à à la ferme Gaddi gi Charles xam nga ñoo leen di remercier di leen wax ni xam nga vraiment fii moom seen kër la xam nga la porte est grande ouverte heure boo leen bëggee vous pouvez revenir xam nga di leen ñaanal yàlla seen télé dem ba xam nga raw raw euh, BBC xam nga yàlla mën na ko te yàlla na ko def waa di di di dolliwaat tam di gërëmaat tam sama sama mon oncle docteur Mabouba xam nga di ko encouragé di ko wax que xam nga yàlla na ko yàlla defal jàmm xam nga parce que moom vraiment bon mën naa ni Sénégal fi bu ñu amoon bon di su mel ni moom rek dëkk bi je pense que dina dina dina dina dina dem parce que xam nga créer des emplois parce que loolu rek moo a dimbali ci ci suñu Sénégal parce que Sénégal gars yi dañu sonn donc ñi nga si am nañ tuuti am nañ tuuti tuuti tuuti nañ si jéem a créer des emplois wax ñu may parce que may nit moom boo may ma nit boo continue yaa yaa ngi koy encouragé pour mu bañ a liggéey comprendre nga mais créer des emplois xam nga essayer de xam nga de de de mobiliser les jeunes Alors ici, moi j'ai eu à euh, contrôler et à gérer tout ce qui est parti, euh, une grosse partie du génie civil, la mise en place des équipes, le contrôle des, œuvres euh, réalisées et la mise et la réalisation des, bâtiments. Écoutez, il y, a quand même des choses qui ont, ont évolué. Si on prend ne serait-ce qu'une vingtaine d'années en arrière, on avait des bâtiments réalisés semi-ouvert avec très peu de gestion, très peu de contrôle et on est arrivé avec des bâtiments sophistiqués, climatisés, où vous avez pu voir à l'intérieur comment euh, se réalise la gestion de tous ces, bâtiments et l'évolution de tout le comportement des troupeaux à l'intérieur. on aurait pu croire que les jeunes qui sortent de l'école n'était pas, comment dirais-je, aguerri ou n'avez pas l'ambition d'arriver à, réaliser certains objectifs, eh bien on se trompe parce que nous, on n'a pas que cette fonction de vendre, d'installer et de monter ces bâtiments-là euh, juste pour produire du poulet. Lorsque on, met en place des structures comme le, projet de Gadegui, qui n'est qu'à ses prémices, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans le développement, on s'est aperçu qu'on a eu affaire à une équipe de jeunes, des jeunes à peine sevrés, on dirait. Alors, vous savez, c'était. Et on les a assistés. On les a assistés et on a été là, pas au quotidien, mais pour ma part assez souvent. Gabriel euh, les a suivis euh, d'une autre manière. Et on suit très bien, ils suivent très bien ces conseils-là. Et je peux vous dire que je suis agréablement surpris, personnellement, par leur performance. C'est vraiment euh, du très très bon boulot justement, c'est des jeunes qui ne pas, qui sont pas encore euh, détruits par l'habitude, vous comprenez Ils sont euh, peut-être naïfs sur certains points, novices, mais tout ce qu'on leur dit, ça va dans le bon sens. Donc, euh, ça marche. C'est peut-être un objectif qui, va arriver dans 10, 15 ou 20 ans peut-être, mais il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je ne vois pas pourquoi des Sénégalais ne <laughs> pourraient pas arriver à, à élever du poulet. Hein. C'est évident. Hein. nous, on a signé des, contrats avec, euh, avec des, grands abattoirs de la, de la, de du pays. Donc, euh, pratiquement, 80% de notre production, nous avons fait Bon, après, après, après abattoir, euh, on a aussi les bana les particuliers. Pour l'instant, nous avons fait bon, pour l'instant, on est national, mais sur une vision, je pense que vision docteur Maboua, Bon, nous, on vise, on vise euh, l'international. Hein, Mais pour l'instant, donc, euh, comme on vient juste de débuter, donc, l'union de moi, je me rester sur le, sur le côté national. mu nga gis ngeen ko solaat nañu suñu yére ginnaaw bi nga xam ne nañ ci ak euh, technicien yu jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk euh, si biir di liggéey si wàllum yarum ginaar di wàllum aviculture euh, gis ngeen li nga xamante bi fi gën a yaatu léegi nag dañuy wutali si beneen pàcc di surga di pàcc bi nga xam ne moom lañ jagleel yaatu si li nga xam ne di domaine bi tey nag ki nga xamante ni bi moo ñu daal di gindi ba si indi ñu fi nga xam ne moo di gàdd gi la ñuy seqal yaatu madame Adama Cissé mi nga xamante bi mu ngi yëngu bu baax baax yar ak li nga xamante bi di taxawaayam dañuy seq ak moom waxtaan wu yaatu woo xam ne moo jëm si wàllum yaram ginaar taxawaay si réewum Sénégal ak défi yi nga xam ne moo koy laaj yëpp da ngeen ni daal di teewlu li nga xam ne moo di waxtaan yi seq ak moom laataa ñuy euh, tëj li nga jataay bi salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp te di leen dalal euh, yéen waa ITV te leen sant tamit ci ni ngeen ñu seet si man Adama Sène Cissé laa tout, euh, maa ngi yëngatu ci li ngeen gis ni affaire élevage <clears throat> ak affaire mbay ak transformation des produits locaux valorisation des produits locaux euh, mais nekul ne lo xam la dama ko jangol dama ci nekkoon avant euh, avant mangi ngi euh banque la doon liggéeyee disons voilà donc loolu moy sama sama expérience bi ma am bi expérience bi gëna gudd bi ma am dans mon parcours professionnel ci secteur bancaire la wa ci la joggé nak depuis 2017 am euh, ambition euh, def lo xamné da fay créer ay emploi def lo xamné da fay yok koom kom ca ma and ci aussi ak ko xamné ne dafa gëm lima gëm ñu bokk vision waaw ñu ñu taxawal gàdd gi gàdd gi ni ma koy waxee gàdd gi mënuñ ne gàdd gi société la wala projet la parce que gàdd gi ci boppam programme la programme la boo xam ne multidimensionnel dafa am euh, duñ ko mënee xayma ñeenti pilier premier bi mooy transformation agroalimentaire pour loolu dañu am benn usine buñ taxawal mi ngi Touba ñu wax également deuxième pilier bi mooy aviculture mooy fi ñu nekk nii tey nga xam ne mi ngi commencé depuis novembre 2020 troisième pilier bi mooy euh, embouche bovine c'est-à-dire yar nag soit nga jaay ko noonu wala nga abattre daggate ko jaay ko euh, quatrième pilier bi mooy agriculture agriculture nag c'est parce que moom mooy soutenir ñetti piliers yi ma njëkk a wax euh, usine bi euh, ay produits agricoles pour diko transformer ginaar yi ñuy yar fi soxla nañ produits agricoles yo xamne ne moom transformer jox leen ñu koy duñ waxee également yar ay nak soxla nañ produits agricoles donc d'al, disons que synergie bobu lañ bëgg créer léegi nak vision bi moy lan vision garde gi moy lan ñun dañoo bëgg ay créer ay sociétés yo xamne dañuy nekk ay sociétés yu yo xamne ne dana am kom kom ca it communauté bi c'est-à-dire population danañ ci gis seen bopp li ñuy wax euh, un genre de euh, participation inclusive voilà loolu la ñu bëgg créer ba pare aussi ñu fixel suñ bopp ñaari mission non seulement di créer ay entreprises mais di créer ay entreprises yoo xam dañuy indi koom-koom ba pare également dañuy créer ay emploi parce que loo mënti def du nekkee ne créer woo ci ay emploi communauté bi gisuñu ci sen bop à la limite dang koy def mais du sot ñun loolu lañu ñu gëm waaw léegi ambition bi ñu am nak ma daanele fofu ambition bi ñu am moy li def ni yépp ñu créer une entité agroalimentaire leader qui qui qui fait partie des leaders au Sénégal ak en Afrique loolu est suñu ambition ci li ñu ci lañuy xëy ci lañuy gont ci liggéey jour bu jot alors aviculture mooy secteur boo xam ne mi ngi dox mi ngi dox parce que année bi euh, niñ ko xaymaa duñ waxee poulet de chair rek on parle de 60 millions de poulet de chair par an duñu waxee euh, lan lay indi ci koom-koom c'est-à-dire chiffre d'affaires 160 milliards de francs CFA à peu près te loolu poulet de chair rek la avons le secteur bi ëpp 200 milliards ce secteur bi aussi mi progressé de 15 par an donc nous avons am na indi secteur avicole créé 30 000 emplois Nous ci nekk tamit ñi nga xam ñi ciy yëngatu investir investir des centaines de milliards donc loolu le secteur avicole Sénégal le secteur dynamique nous ay opérateurs industriels c'est-à-dire ñoo xamné dañu bâtiments modernes mais nous également ñoo xamné ñi toujours à l'état traditionnel c'est-à-dire une exploitation c'est à l'état traditionnel ce qui ça représente 80 des exploitations avicoles au Sénégal waaw accompagnement dana ci am parce que euh, quoi qu'on dise exploitation traditionnelle quand même

donc il faut que effectivement soutenions ñu soutenir les soutien bi soutien financier mais également renforcement de capacité parce que euh, looy def aussi en train koy da faire. ciy jàngat ca bi tout le temps de les donc renforcement de capacité dans ci baax euh, message que lancé est que ce secteur est sensible difficile, difficile mais nit n'y ngi ciy

Euh, am nga ci tamit ñi nga xam ne ay couvoir la ñu yore dañuy dem jënd seen i à couver couver leen di jaay ay abattoir yi am restaurant yi koy de valeur donc dafa euh, métier bari dafa secteur dafa bari ay également il y a ce qu'on appelle les œufs de table c'est-à-dire les nen yi nga xam consommer xam nga ñooñu moom la ñuy wax pondeuse loolu tamit beneen métier la ci biir donc daal aviculture mooy métier boo mooy secteur boo xam ne riche na ba nga xam ne pour man ko nekk xaj na ci. xam nga depuis 2004 la état bi jël ay mesures yoo xam ne dafa euh, interdire ca loolu je pense c'est fait à juste raison interdire importation produits avicoliennes yi parce que juste pour se également protéger secteur bi ci yenn maladie yi nga xam ne day jóge bitim réew nak euh secteur bi est-ce que c'est est-ce que c'est autosuffisant ou pas man li ma bëgg wax rek moy di secteur bi ni ngi produire en fait mais fay am ay période de pic xam nga duñ né korité ñu né tam xarit wala ñu né fin d'année tout le temps da nga rek ñu naan ginar amul ginar, amul wala ginar dafa cher wa lolu mom euh amna mais secteur la bo xamné ne euh, pour man fay continuer di mag parce que do jëlee Afrique Afrique xam nga 13% 13% de la population mondiale mais Afrique 4%, production avicole 4% avec rek la ci def doo L'Asie Asie Asie c'est le premier continent en train de production avicole 60% la ci def kon xam nga ñun fim tollu Afrique euh, ou Afrique wala Sénégal amnañ encore marge de progression Amnañ marge de progression parce que euh, euh, ndawalu ginar moy ndawal bo xamné en fait c'est

dana tax ba dañoo war a dem ne léegi maintenant di jël produit nga xam ne moo gën a yomb pour population yi mën koo jëfandikoo ca ginaar ci la bokk. li ma bëggoon a yokk rek mooy di ne secteur bi am na ay contraintes am na. défi yi nag mën nañ leen a catégoriser par exemple dafa am ay défi yoo xam ne c'est d'ordre alimentaire c'est-à-dire ginaar yi il faut que nga leen di jox euh, non seulement lekk gu doy mais bu équilibré. te ñun ñëpp xam nañ ne base bi mboq la ak soja mboq moom fi mu toll prix bi jéggi na cher na tonne de maïs bi mi ngi doon jar en juin en juillet 2020 175 euros la tonne juin 2021 euh, bi yegg na 264 euros la tonne xam nga kon loolu cher les défi d'ordre sanitaire parce que doy def ginaar euh, dafa am da nga war nga nettoyer war nga désinfecter te tamit do defee vente ci ben bâtiment war nga tok 15 jours au moins yo xam da nga def vide sanitaire xam nga lolu prophylaxie d'ordre sanitaire bob il faut que ñu koy respecter défi la nak parce que do bëggé def lu bari man nga kaw baña respecter il y a également des la prophylaxie d'ordre sanitaire loolu tamit xam nga défi la parce que yi ñuy jox ginaar yi vaccin yeeg yooyu ça coûte de l'argent cher na ba pare it fabriqué wuñ ko fii kon xam nga rupture mën naa am na défi d'ordre financier parce que généralement man mi nekkoon secteur bancaire bi xam naa généralement banque yi aviculture pour ñoom secteur bu sensible la donc buñ ko bëgg di financer wala doy soog commencé buñ ko bëgg di financer te loolu man euh, loo xam ne biir na ma la léegi am na beneen catégorie dernière catégorie bi ma bëgg citer mooy les défis d'ordre structurel xam nga ñun dañu am économie boo xam ne dafa am produit wala ay matières yoo xam dafa ñu dépendre de l'extérieur c'est-à-dire extérieur lañ koy jégaale mooy maïs bi ma doon wax mooy soja bi mooy vaccin également xam nga intrant yooyu yëpp di dugg xëy na war nañoo xool ne xëy na boog maïs bi ñu xool nan la ñuy wàññee taxi yeeg yooyu ou bien man pour man sax lan la ñu war a def peut-être mooy créer des zones de culture du maïs. je pense que c'est ça mooy mooy mooy moo koy mooy fe mooy fexe ba nga xam ne dana moins cher ci nga xam ne ñooy produire léegi comme également il y a des défis d'ordre financier xam nga euh, pour que ñu industrialiser secteur bi dana xaw a jafe il faut que peut-être ñu menions de réflexion xool nan la def ba nga xamné ñi nga bëgg ñi nga xamné ba ñu ñi nga xamné ñoo bëgg investir ci secteur bi nan lañuy def ba nga xamné yombal leen fi pourquoi pas pourquoi pas ne pas viser euh, effectivement l'international c'est possible parce que Sénégal dafa am ay acteurs majeurs ci aviculture je pense que loolu kenn nattable nattable wu ko donc secteur bi day continuer di développer investissement yi def nañ ko ca gis nañ ne effectivement amna acteur acteurs yoo xam ngi fi mais ñi ngi également di percer yenen marché de la sous-région danañ dem ba non seulement dañuy dem di installer wu ci yenen dëkk yi mais également mën nañuy exporter ci yenen dëkk yi lolu lepp mën na am parce que qualité baa ngi fi investissement baa ngi fi également ndaw ñi ñi ngi leen ciy former donc loolu dañ ko war a continuer pour effectivement exporter le exporter label avicole sénégalais jërëjëf madame madame Cissé jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi lii lañ leen ni doon tey ci jataay bi nga xamante ni bii moo di dundee suuf si lu jëm ci wàllum mbay ak sàmm tey nag ñu doon waxtaanee lu am solo di wàllum agriculture yarum ginaar ni ko gisee mu yaatu lool ak ñi nga xamante ni bii ñoo di waa gi ay ndaw nag yu jàmbaar yi fës na fi ndax ñoom ñooy gën a ràññeeku sax techniciens yi nga xam ne ñoo fi nekk fësal nañu lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum yarum ginaar nii ñu war a def ak li ñu war a mën a ngir ñu mën cee li nga xamante ni bii moo di dunde ko nu mu gënee mucc ayib dunde suuf si nii la mbay ak sàmm lu mu gën a yaatoo jaajëfal leen ci teewlu bi jaajëfal Cheikh Diop mi faré woon ci caméra bi ba ngeen mën koo teewlu Marabat Fall moo nekkoon si li nga xam ne moo di logistique bi beneen jataay beneen weer si beneen filière lépp jëm si wàllu mbay ak sàmm ngir ñu dunde suuf si dunde suuf si joo euh, doxal réewum Sénégal sim koom-koom mu gën yaatu